boo may seet si réseau yi yow te foo bindal te kàddu sama waa ji teg ci o dolil o yaa ngi kàddu o eh, e per taxawal yow indi li nga yor te xoola per xoola mooy loolu bul toof da nga ma wax tey sama xol neexul ndax kàddu o lay sivre chaque jour koo seetaan mooy Mickey yi xam nga man damaa antroog Mickey mais xoola mooy loolu quoi gel bu ko doon neexal femme bu ko doon neexal xoolal kooku daa dégg tur si affaire yi sama xol boot moo tax tey génnewu ma jaasi pistolet laa génnee indi li nga yor wala ma ray la lu leer laa tegal te gis nga lu ma gën a métti maa ngi leen woo téléphone di leen ko tegal naa leen ani femme bi ñaama laa dem waalo quoi ñooñu moom ñàkk jot si ñoom moo may téye ma bañ leen agressé quoi <laughs> déggal sama doom moom nee na ma indil li nga yor <laughs> ba tey man damaa yor dara man daal doom waxoon nañ ma sax réewum tax ba mu boo fa demee lu nekk di gis nit ku nekk ngay gis façon bu ne yow nag moom xalaatuma la woon nii nga toll nii mu la yoroon dëkk ba surga laa lay def dugal si tool yi ngay bay parce que yow mii kat kàttan am nga ko wala nga bëre ji da dem bëre ji waaw te lii nga ma joxoñ moom lu mu doon lii nga ma joxoñ moom <laughs> téye nga ak doole di <laughs> waaw en tout cas Kër Mor Diallo laa laajte waaw dëkk ba mu fay jógee yam nañ ma tax ba demee nit ku nekk di ko gis

yoroo yoro yat yetu kel ah sóori sax yoroo ko yor sa lii xaw ma lu mu doon tiimale ma ko naan boo ma boo ma ko dóoree li ma ko dóoree du mujj fenn waaw su nga ëmb gi si ci rek ñebee si ne yàgg naa ko lekk waaw ah, wow moom lay dundee ah jàll nag tuuti na waaye dangar gang si biir xajal ma ma dem boo mun wax kër Mor Diallo daal doom bàyyi rekk ma dem waaw moo gën nga nekk nii taxaw sama kaw ti neeweke res nii <laughs> yëngaloo ma say ñu la ëpp laa tër dëkk ba lu leer laa la wax waaye père yow looy teg nii nga ma ay man carte laa wala busol laa wala sedd de quartier wala waaye yow man loo ma teg ba naan ma ay naa la teg da kër mbor jàllo gi ngeen xamul nii looy teg nii yow yow man agresseur laa raykatu nit laa xanaa loolu mën nga ko dégg li pistolet la pistolet xanaa doo seetaan film film kaboy xanaa doo ko seetaan yow père yow ban continent nga jógee <laughs> sama doom jee neex nee na chef de quartier yow mënoo nekk chef de parce que ñu son seedoo village benn xut xut dara sa dëkk ba béy jaw baa ngi si bopp bi ak si sikki bi magum jëmm la te yow miitu tànk kon mënoo ko doon bu si topp bi nga ni da ngay rey nit yow mënoo rey sax ginaar waaw mënoo rey ginaar ndax sa lii bu dee moo may rey càmmoñ nga ko téye te loxo ndeyjoor ngay téye booy rey <laughs> doom daal yow na ngaa neex waaw neex daal lu du neex moom defoo ko waaw te compte googu nga wax tamit waaw foofu moom déggoon nañ fa que waa loo liggéey rek ubbil compte ti ko sa ñaf waaw ibil compte ko fa ñaf waaw loolu liggéey ñaf ko fa ndax bu dul loolu xale di yi mooy loolu léegi naa xonq nañ waaw nooy nañ weex nañ waaw mën nañ ko foqati si yow te loolu yëpp ay problème lay jur. c'est avec ça ñu ni town bi dina dox mais avec saa ñi ni town bi dëkk bi dina dox na lay doxee mais dëkk pour mu dox agression dafa war a mën a am si dëkk quoi xam nga waaw ngay agressé te am xaalis quoi comme amoo job mais boo agressé mooy la nga war am dara quoi xam nga. du yoon yi ngeen di dox nii si mbedd mi te yoroo leen dara parce que nañu war a bàyyi xel ñun ñi te agressé quoi ñun si yéen la ñuy amee quoi. Eh, gis nga saa doom 2600 yooyu nga wax noonu keroog laa laaj ci dëkk ba mu ko laajtee ni ñaata la ñun ma juróomi téeméer la loolu xaalis la ma ne loolu mu ko liggéey moom par weer léegi ma am dara waaw waaw juróomi téeméer yooyu ma koy am par chaque weer. bismillah. addaana yàlla asalaamaaleykum askanu Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp mu mel ni seen i coono ak seen i tawat ñi ngeen amoon di ko sooxaale jeex na suñu borom moo doomu aadama muy jànkonteel ay jafe-jafe ci dundam léeg-léegi ñàkk def ay sarax di firndeel li ni mel Serigne Mohamed Diakhaté yàlla may ko lool ci wàllum ñaan kon déglul ma wax la yow mi am ay jafe-jafe nga bëgg a dem diwaanu bitim réew am lu ko gàkkal demal nga seeti Serigne Mohamed Diakhaté yàlla may na ko ci lool yow mi nga xamante ni sa wërsëg demeewul noonu bunt boo fëgg mu dëgër boo jëflanteeg Serigne Mohamed Diakhaté saafara dina ci am lool naam sopp na borom bi yow mi nga xamante ni def defu doomu aadama moo la jàpp indi la loraange ci sa dund demal nga seeti Serigne Mohamed Diakhaté mu jëflante ak yow wax la sarax yi nga war a génne sang la teg la ci yoon yow mi jàng Serigne Mohamed Diakhaté fàttewule benn yoon moo xam nga ba ñu lay bindal demal seeti Serigne Mohamed jaxate yow mi def examen bàyyiwula benn yoon boo jëflanteek moom suñu borom dina def xewal may la li nga xamante ni moom ngay sàkku Serigne Mohamed Diakhaté ni ma yamuma foofu kese dina indi liki-liki ma ni ko lan mooy liki-liki mooy jaara wërsëg bi nga xamante ni moom ngeen di wër moom da koy defar kon mbokk yi dem leen seeti Serigne Mohamed Diakhaté képp ku jëflante ak moom doo ko rëccu benn yoon ku yàlla may la ci wàllum ñaan yow bëgg ay ñaan yu aar sa njaboot wala sa bopp demal seeti Serigne Mohamed Diakhaté yow mi nga xamante ni da ngay jàng Serigne Mohamed Diakhaté fàttewule benn yoon Serigne Mohamed Diakhaté indi ay jaaro yu amul fenn lépp lambaayoo ay wër sa kese yow mi nga xamante nii danga am ay jafe-jafe ci sa dund boo jëflanteeg Serigne Mohamed Diakhaté mu seetal la génn loolu ay sarax bu soobee borom bi sa yoon dina leer nañ ñi kon mbokk yi mos leen Serigne Mohamed Diakhaté mi ngi ci Dakar mer moo sacré Sacré-Cœur ku bëgg a jokkoo ak moom da nga koy woo ci numéro yi ñu lay jox 78 211 82 44 76 817 06 22 Serigne Mouhamed Diakhaté fa seeni ànd ak yéen lépp rek ngir saafara leen seeni ay tawat yi ngeen amee Serigne Mouhamed Diakhaté ku ko mos da nga xam ni kii mooy waaj yi عبرتلي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بنفسي لاخترت يا الله boo may seet si réseau yi yow te foo bind te kàddu sama waa ji teg ci o dolil o